liggéey bi nag sëñ Cheikh Jëm Fall mooy jëwriñ ji noo ngi ci tool yi nag tàmm nañ ko tey jii alxames fukki fan ak benn ci weer ci weer trois bii waaye nag ci weer wolof yi moom tey la benn fan safar sëñ bi nee na nag yaakaar maam Cheikh Fall ndigal bàyyeetul la fa ne bàyyi la jàppante ñëw ci liggéey bi ñu li sëñ bëgg ñu def ko ba mu mel ne ko gënal sëñ bi li mu bëgg bu ko rek li bëgg na am ko ci sëñ Tuubaa bi ñu jëm itam nu ñaan sëñ Tuubaa dimbali ak jàmm te dimbali ba ni ñu koy waajale mu boole ay xéewal ba yàgg koo fekkee lool yàgg koo def ni ko borom bëgg rek loolu noonu soñu tey soñu ñëpp jëwriñ ji nag mu ngi ci rond-point ba lu waaye di joxe boo ne boo ko joxee dana dana ko joxe sëñ Moussa Fallou mooy jëwriñ ji mu ngi foofee ci buntu buntu buntu rond-point ba noonu nag mooy jëwriñ ji àndal liggéey bi noo ngi fii ci marché Ocass fas yéene nag du nga ko bàyyi mukk mukk te àggul mbaa ñoon jàngeen jëf kon ko si yaakaar na ci Serigne si maam Serigne Fall nee na suñu jox jëmm nee na bàyyi loo jàppoon liggéey bi ndigal bàyyitu loo fenn nañ ci góorgóorlu baax lu ñuy lu ñuy jaay la waaye lu ñuy maye bu doon lu ñu maye duñ fekk dara kon ñu may ko ñeneen ñun ñun jiitu woon waaye lu ñu jaayee feneen du jeex mukk loo jënd yaa ko moom kon dañoo leen jënd sëñ moom yéene na ko ñëpp ñaan sa borom defal ak ak wér nag ak gudd fan kaan jàmm xéwlu yaar ñu jëkkoo liggéey bi yàgg koo liggéeyal sëñ Tuubaa Seex Faal ndigal la na ñëpp ñëw ci liggéey bi tàmbali ñu ko àggagul xaajagul sax bu leen bàyyite àggul jërëjëf rek mbaa mu jeex